أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إخوة الإيمان كم من أقوال معجبة مدهشة رائعة سجلها على أنفسهم المسؤولون وغير المسؤولين في أسلوب رائع يرتاب سامعه في أنه الإيمان والإخلاص والعزيمة مجسدة مع منطق العقيدة والخلق وصيحة العزم والحزم bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu borom moo nuy woo ci baatu ngëm borom bi ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm kan moo woote yàlla ñan la woo ñi ko gëm mu ne lu tax ngeen di wax lima taquluuna ma la tafaaluun lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def bu nu déggee aaya bi dëgg mbokk jullit yi ñun ñëpp dañuy ànd xam ne sunu réew mi réewum wax kese la sans jëf wax rek balaa ngay xam ne réew mi réewum wax la événement xew am programme bu am rajo yi dañuy wax télé yi wax mbedd mi wax jotaay yi wax grand place yi wax kër yi wax rek sunu dund amul benn njëriñ lu dul wax kese sans jëf dañuy wax rek soo demee ci nguur gi fekk kenn du liggéey waxu kese bal sax ñoom wax lan leen di fale parce que balaa kenn ci ñoom falu wër réew mi yëpp ci ay otoom ak alalam wax ba ñu fal la waaye boo yéegee li nga waxoon kenn du ci gis dara looloo tax sunu réew mi mënta dem ndax réew mu wax la même université ña fay génn da ngay gis doctorat en science politique wax rek la jàng ndeysaan nekk ba nekk doctorat ku jàng ba am doctorat ci wax lan ngay liggéey loolu ban njëriñ la am looloo tax ñu toog 15 jours réew mi mënut a am ndox benn tiwo boo xam ne dafa toj mënuñu am tiwo mënuñu suude tiwo lu ñu woy waa France ak waa Chine kaa leen ngeen dimbali nu kon université bi lan lañ fiy jàngal ana ñu fiy jàng lan lañ fay génnee ana sunu technicien yi ana école yi ñu fiy jàng ana milliards yi li ñuy wax hatta ab tiwo Sénégal mënuñu ko suude ab tiwo foog ñu woy tubaab yi kon ana seen indépendance su fekkente ne ñun mënuñu demal suñu bopp chaque jour bu dara xewee foog ñu wooyu tubaab du ma fàtte mukk waa ji doon gas teen bi fii ci golf sud teen bi daal di màbb ci kawam ba ci dënn bi sénégalais mënuñ ci dara ba dañoo wooyu France walla danoo dem wooye ji waa France kaa leen ngeen dimbali nu keroog doomu Ablaye Wade immeuble bi mu nekkoon immeuble Tamaro bi mu commencé lakk danoo wooyi France lu xew rek ñu ne nan wooyi tubaab yi kon ñun lan la ñuy jàng li ko waral mooy waxu kese wax moo dul defar réew wax yorul réew réew li ko yor mooy liggéey rawatina nag ay jullit wallahi wax guddi wax ba cëkk hatta sax espoir bi xam na ne duñ dem wax rek wax rek hatta espoir bi fu ñu dem ñu dóor leen ñu ñëwaat ba ci basket bi barki démb wax kese dañuy wax rek foo dem wax la foo tourné grand place wax loolu la nu sunu borom yedd ci quran yàlla mu nenu yaa ayuha alladina amanu lima lima sual min man min allah ilayna lima taquluun ma la tafaluun lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def wax la fi Abdou Diouf nekkoon ñu mere ko jëli ko fi dara nekku fi teg fi Abdoulaye Wade mu ñëw wax def fi dara ñu jële ko fi Macky ñëw mu ngi nii wax du fi def dara parce que du problème u nit ñi waaye système bi moo baaxul foog ñu xoolaat sunu système réew wax defaru réew réew li ko yor mooy liggéey àdduna li ko yor mooy liggéey nit ñi futteeku liggéey waaye réew moo xam ne dañuy wax rek xoolal nawetaan lan nekk nawet lan moo waroon nit ñi nawet lan mooy xew day taw suuf si day tooy lu war ci loolu ndox mu taw wàcc suuf su tooy lan moo ci war ku nekk fi nga toog sa xel dina ne bàyyi waaye déedéet dañ koy bàyyi nekk ci nawetaan bi tubaab yi nga xam ne ñoo fi indi football sax nawetaan amul seen réew nawetaan amu fa ñun ñu nekk ci football nekk ci làmb nekk ci pecc nekk ci woy nekk ci caaxaan bëgg suñu réew dem looloo tax mbokk yi ay fecckat ak ay gaynde ay mbër mënuñu suudati woo réew moo xam ne ñëpp ay fecckat lañ réew moo xam ne ñëpp ay simbkat lañ ñii ay mbër lañ ñii ay footballeur wallahi réew moomu jaadu na ci ñoom bu ñu maree ñu bañ a naan tiwo bi duñ ko suudee parce que tiwo li koy defar mooy xam-xam réew bu amul xam-xam du dem looloo tax boroom xam-xam yi naan iza qulta naam fi shay'in fa atimmahu fa inna naam daynun alal xurri waajib boo waxee waaw ñu ne jëf rek lu tax ñu ne gor su xasee wax waaw waaw la ba yowmal qiyaamati du soppeeku waaye gis ngeen ci sommet ba la tàmbali woon président de la république maa waxoon waxeet du dem parce que système bi baaxul muy bàkkaar bu rëy nag ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ñun ban ko doyo di lee ñàkk koo gëm ñàkk gëm liggéey li ñuy wax yàlla mu ne kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafaaluun bàkkaar bu rëy la ci yàlla nga taxaw ci kanamu jullit yi wax dinaa def te defoo ixwatal iman ñaata wax lañ gis tey wax yoo xam ne dafa yéeme wax yu neex wax yu dugg ci xol yi wax yu yëkkatiku ba histoire sax bind ko ci responsable yi diine ji ak addina bi ñi jiitee addina bi ak ñi jiitee diine ji wax yooyu yëpp ba histoire bind ko waaye fan lay mujj nit ñi jàpp na ñi ko wax am nañ ixlaas am nañ imaan am nañ dogu goo xam ne danañ def li ñu wax waaye fan lay mujj mu nekk ngelaw daal di saay daal di dem yoonam lu tax parce que yàlla tëralul àdduna ci ay foog foog naa yaakaaroon naa ne waa ji déedéet yàlla tëralul loolu ci àdduna yàlla dafa bëgg lépp lu ñuy def mu leer lu ñuy def ñu teg ko ci xam-xam yonent alayhi salaatu wasalaam nee na man arada dunya mu ne fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira ne fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arafa quran arafa rabbah wa man arafa rabbah daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin yonent bi nee na ku bëgg àdduna demal nga uti xam-xam waxul demal nga bëre ji waxul demal nga football yi dafa ne demal nga uti xam-xam man arada dunya mu ne fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira ku bëgg al axira mu ne fa alayhi bil ilmi waaw yonent ku bëgg ñaar yooyu nag ku bëgg àdduna bëgg al axira mu ne fa alayhi bil ilmi da dem uti xam-xam tey lan la ñu noote lislaam ba munta dem mooy ñàkk xam-xam benn borom téere dafa bind benn téere wala ci benn journal la def wax ji mu ne al islam bayna naarayni islaam a ngi ci ñaari safara ñaari safara ñoo ko wër ñu ne ko safara bu njëkk bi mu ne quwatu adaihi ñi ko noonu dañoo am kattan ñu ne ñaareel bi mu ne wa jëhlu abnaayihi doomu lislaam yi dañoo réer xamuñu lislaam xamuñu àdduna jullit yi ñaar moo leen dal islam xamuñu ko jànguñu ko diine ji adduna bi xamuñ ci dara mun du dem ñaari réer yooyu su ko ay nit boolee fuñ jëm réere sa diine réere sa adduna tubaab yi sax ñoom rëcc nañ bu ñu xamulee diine xam nañ adduna ñoo ngi defal avion yi ñuy naaw ñoo ngi defal bateau yi ci biir géej gi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi tey lan la ñu nootee jullit yi ba jullit yi mënuñu dem mooy jullit ñi amuñu doole lu tax parce que dañoo bàyyi quran bi leen yàlla waxoon ne wa iddu lahum mastataatum min quwa yàlla waxoon na démb na ngeen préparé loolu ñu naan kattan loolu ñu naan force loolu ñu naan doole doole nag bu ñu yaakaar ne dem di yëg ay montagne loolu la yàlla namm déedéet ci la bokk nag waaye yàlla bu nee dem leen ngeen uti doole li ci ëpp mooy dooley xam-xam nit ñi dañu war a jàngal suñu doom yi tey Sénégal a ngi nii xool leen rek géej gi ni mu waree ndakaaru te ndox mi mënut a génn Dakar looloo tax waxlaan naa leen benn xutba fii ci korité billahi lazi la ilaha illa huwa bu nu indi woon ay technicien yu jóge Allemagne ñuy jóge Chine pour ñu defar Dakar ay tiwo yu dem géej bu ñu paree yàlla dina fatt tiwo yi parce que système bi ñuy dunde baaxul foog ñu defaraat ko dañuy sonal suñu bopp rek duñu dem ndax réew moo xam ne waxu kese waxu kese duñ dem yonent bi nee na ku bëgg àdduna util xam-xam ku bëgg alaxira util xam-xam ku bëgg a boole ñaari util xam-xam ñu ne waaw yonent ku bëgg xam-xam foo jëm mu ne fa alayhi bil quran nga dem jàng alquran ku jàng alquran rek am xam-xam waxuñu jàngin bii de nga xam alquran lan moo tax mu wàcc tey ñun musiba mun dal mooy jàpp nañ ne alxuraan téere barkeelu la ki jënd kaamil lu mu koy dee teg ci armoire am bu xëyee daal di fomp raay def ci kanamam kee jënd na kaamil lu mu koy dee da koy teg ci oto bi kee jënd na kaamil lu mu koy dee da koy saraxe kee jënd na kaamil lu mu koy dee da koy gas ci buntu këram suul parce que dafa bëgg kër gi ñu aaru ñu ne ko alxuraan a baax mu dem jël ah gisu leen ki jël alquran daal di koy dugal ci benn kalfe yóbbu ko ci uude mu ñawal ko ko ab saag bu ndaw mu takk ko ci dëndëm ñu bari ñu ngeen di gis ñuy takk ay ay ay mbir ci seen dënn yi yëf yi aju ci seen baat di wàcc ci seen dënn yi am tur yuñ koy tuddee souvent ay kaamil moo ciy nekk kaamil bi nag du woon pour poset bi du woon pour kër gi du woon pour oto bi du woon pour armoire yi du woon pour bibliothèque yi kaamil bi pour kan la woon pour yow pour nga xam fooy secteur sànq kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila nuur yàlla wax muhammad ne ko téere bi ma la jox téere la boo xam ne maa ko wàcce pour nga génne nit ñi ci lëndëm yi min azulumat ci lëndëm yi la ko wax waxul lëndëm de lëndëm yi ila nuur pour nga yóbbu nit ñi ci leer lu tax du ñu génn ci lëndëm est-ce que téere boobu la ñu gëmul téere boobu la ñu sànni yàlla waxoon nañu nag téere boobu ku ko sànni nga bàyyi ko ci ginnaaw noonu nga bàyyee téere bi ci ginnaaw noonu ngay nekkee ci ginnaaw wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla subhanahu wa taala moo waxoon yonent bi ne ko téere bii képp ku ko bàyyi sa dund dina metti sunu dund looloo tax mu metti mbokk jullit yi àll bi àll bi kenn gisul picc yi di lab ndax mbënn kenn gisul rabu àll yi ñuy lab ndax mbënn mbelantaani sax rabuñu labuñu ndax mbënn ñan ñooy lab ñun lu tax parce que dañoo lànk bañ a jaamu yàlla loolu moo tax ndox mi wàcc sax yàlla danaan suuf si bul wann ndox mi suuf si léegi dootul wann ndox ndox mi day bërëngu nga gis muy dem suuf si sax dootu ko wannati lu tax parce que yàlla moo koy jox ndigal yàlla moom moom suuf si yàlla moom moom àddina bi foog ñu xam ne àddina li ko yor mooy al iman wa taqwa wal amal ginnaaw ngëm ragal yàlla jëf moo fi des saa yoo jàngee ci aaya illa allazina amanu lu ciy tagu mooy wa amal wa amil wa amilu salihat al iman wal amal ngëm ak liggéey waaye réew moo xam ne wax guddi wax bëccëg ixwat al iman réew moomu du dem aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al ghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din ولو كره الكافرون إخوة الإيمان لن يفلح أمة يكثر فيها القائلون الذين لا يعملون بما يقولون فكيف بأمة إذن يكثر فيها العاملون بعكس ما يقولون بك جلجي نانو لير نه boroom xam-xam yi dañu ne lan yuflix du texe mukk du am jàmm mukk xeet woo xam ne yuksiru fiha alqaailuun ay wax kese ñoo fa nekk waxkat réew moo xam ne ñëpp ay waxkat lañ boroom xam-xam nee nañu réew moomu du dem te saa yoo fekkee waxkat tàggkatu boppam kuy jaay boppam su yeboo nga moytu ko bu dee nitu diine bu dee nitu àdduna ñaari nit dañu ànd kenn ki di wax rek di jay boppam te ci àll lañ nekk ñoom ñaar man ba ma gisee gaynde dama ko yuuxu mu dee man ba ma gisee ñay benn pes laa ko dóor mu dee waa ji wax rek xarit bi di déglu rek ñuy ànd ñoom ñaar ba càgg rek benn bukki taxaw seen kanam daal di leen di yuuxu bi mu leen yuuxoo kooku doon wax wax ju bari ji daal daw yéeg ci kaw garab keneen ki mu àndoon moom comme munta daw mu daal di tëdd ci suuf deedeelu bukki bi ñëw foon waa ji xam ngeen bukki du lekk lu mu rayul du lekk mét mu foon waa ji waa ji bloqué nooy yéem bukki bi xool xool dafa ne waa ji dafa dee bukki bi foon ñëw ba ci nopp waa ji foon daal di continuer dem ah ki nekkoon ci kaw garab gi wàcc mu ñëw ci waa ji fekk waa ji jóg taxaw mu ne ko bukki bi da la doon fóon ñëw na ba ci sa nopp lan la la wax mu ne nee na ma saa yoo gisee waxkat boroom wax ju bari fenkat la na nga ko moytandiku loolu la ma bukki bi wax bukki bi daf maa dee mu ne ma kuy tagg boppam di jay boppam moytandik ko foo ko gis fenkat la kon doomu ndey boroom xam-xam yi nee nañ laa lan yuflih umma يكثر فيها القائلون الذين لا يعلمون لا يعملون بما يقولون خير woo xam ne wax rek kenn du liggéey Sénégal ngay gis grand place grand place bi lan mooy seen métier dam yi xoolal huit heures ci suba ba minuit ci guddi guddi sax dañuy taal lampe grand place bi dañoo loué lampe dañoo dem ci benn kër xëcc courant wallahi alazim wallahi alazim ku nekk mën nga cee teg bët grand place damier yoo xam ne ci Sénégal dañ ciy loué lampe nit ñi dañuy toog di damier di damier ba ñenn ñi sax seen añ foofu lañ leen koy indil loolu fu ñu jëm réew réew loolu dafa am ci réewu tubaab yi loolu amul ci benn réew rawatina nag réewu jullit wallahi su fekkee nii la ñuy continuer dem danañ fi jëlewaat nguur gii déjà tey fii nu toll mooy mouvement yi commencé naa juddu ay rëccu ay rooti pale mouvement bu nekk nga dégg lu ko waral mooy du nu dem système bee baaxul dara baaxul njàng mi baaxul faj bi baaxul dara baaxul université baa ngi nii xale yaa ngi nii xamuñu dara mbër yi sax ci école yi la ñuy entraîné réew moo xam ne da nga bëgg a tekki réew mu bëgg a dem ci kaw da ngeen di gëm yàlla takku liggéey réew su gëmul liggéey duñ dem waaye réew moo xam ne ñëpp retraite xale yaa ngay naan ataaya maire yaa ngi ca grand place yi di tëni paa yaa ngi ca dami yooyu bolot di yoote réew moomu du dem ma ni football baa ngi nii sax wallahi seen match yéen ak Côte d'Ivoire soreetul barki démb la Lions yi ñibbisi ñu duma leen ñu ñibbisi barki démb ngeen jógee coupe d'Afrique avec équipe boo xam ne dañ leen indi coupe ñu ñëw jël ndaare duñ dem nanu góorgóorlu ragal yàlla réew suñu bëggee dem dañuy am contraire mooy jëf liggéey yamale guddi ak bëccëg wallahi sunu jiitalee imaan teg ci taqwa teg ci amal allahu subhanahu wa taala moo ñuy xettali ak yërmandeem walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard yàlla nee na su ngeen gëmee yàlla su ngeen ma ragalee man yàlla maa leen di ubbil barke asamaan ak suuf ngeen liggéey hatta li ngeen di dunde sax dootu leen ko jëggaane waaye wax kese comme nu yàlla di nettali ci quran wa min annaas man yujibuka qawluhu fi lxayaati dunya wa yashhadu allah ala ma fi qalbi wa huwa ala dul xisaab xoola ki nga xam ne ay projet yi mu yor su ñëwee bu waxee rek ñépp ne allahu akbar waaye ndekkee xolam ak yàlla subhanahu wa taala dafa wuute lan mooy projet am ida tawalla saa fi l ard li yufsida fiha saa yuñ ko falee jox ko projet bi pour mu jiite nit ñi mu commencé yàq commencé yàq li yufsida fiha lan mooy lay njëkk a yàq wa yuhlika al xarsa mbay mi lay njëkk a yàq xoolal lan moo tax mbay mi yàqu parce que dañoo jël ñi waroon bay yëpp jox leen ay bal ak ay équipe ak ay mayo ñu waroon bay ñëpp ñu financé leen ay bal waaw ay bal ay bu ñu leen financé woon gerte ubbi tool yi ñu ne nit ñi bismillah li ñu yor ci ay écurie mbër ñaata la écurie mbër yi mun leen koo compter écurie musique yi mun leen koo compter écurie écurie écurie ñaata ñaata ñaata écurie rappeur ñaata écurie musicien ñaata ñoo ñëpp ba kañ koo gis rek profession danseur profession mbër profession fecc profession loolu fuñ jëm benn jigéen dafa yor benn micro ci xew micro ci xew ci xew di yuuxu kenn ko wàññi defal ndànk waxal ndànk micro nga yor mu ne ko lii ci laay tedd du ma noppi ba yuuxu rek wax kese bu fekkee ci loolu la nar a dund dañuy nax suñu bopp borom bi nee na ñoo xam ne li ñuy njëkk a def mooy yuhlikal xars wan nasal ak njur gi bu nu yàqee tool yi ba tool yi yàqu kenn mënatul bay ñu daal di ñëw ci njur gi planning loon familial leen gis ngeen fi mu nekk nii planning familial ndeysaan am na benn waay buñ tuddee benn islamologue fan yi génn na benn téere ci planning familial xam nga lu mu wax nee na planning familial yàlla moo ko njëkk a santaane ñu ne ko dalil mu ne yàlla nee na inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum seen soxna yi ak seen nooni seen seen doom yi seen noon la comme sa doom sa noon la nag fexeel bul am doom yu bëri di nga taawil aaye loolu la aaye bi di firi yéen ñëpp xam ngeen ko chaque jour mu ngi ci télé bi téere la bind téere ñaari téere lan mooy dalil planning dalil dagan na mu ne inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum beneen bi mu ne fitnatun lakum comme fitna la nag mu ne jarul nit di ko ut est-ce que loolu la est-ce que dëgg-dëgg loolu la Chine a ngi nii ñoo ñëpp te tey adduna bi yëpp ñoo koy defar lépp bañ nañ ko ba bagage boo wax ñu ne la bagage chinois la lépp leen yàq kenn mënu ci dara parce que dañoo am doole parce que dañoo bari suñu borom subhanahu wa taala su buggul woon ñu bari duñu wàcce fi duñu sant lim ñu sant beneen bi mooy est-ce que Sénégal dafa fees ba ñuy planning loo nit ñi déedéet parce que système mu tubaab yi la tubaab yi ñoo leen di wax def leen li xaalis baa ngi nii moo tax Sénégal duñ liggéey parce que nguur gi saa yu sonnee day tàllal loxo rek ñu jox ko moo tax kenn du liggéey fi mu nekk nii kenn du def dara saa yu ñu sonnee rek daal di tàllal loxo ñu jox leen gis nga bi ñu sonnee ci mbànd mi mu taw suudewu dañoo tàllal loxo France rek France daal defar mbànd mi dugal ko ci avion daal ñu ko indil après suudeel ñu ko ñu daal leen na jërëjëf su ko defee nag ñoom suba ñu daal di bind ñoom tamit benn këyit ñoo ne def leen lii ba ne ah li baaxul ci réew mi de ñu ne ñoo suudee woon mbànn mi de dañ koy yàqaat de dañ koy yàqaat de bu ngeen ko signé wul gaaw leen gars yi daal di signé ñu continuer réew mi yàqu rek xale yi di fecc paa yi toog ci bolot yi di damiye maire yi toog fële di tëni ñi- rek ba yowmal qiyaamati jot Sénégal mel nii du nu dem nan leen dellu siwaat ñu xam ne réew takku moom mbokk yi Hiroshima ak Nagasaki yéen ñëpp yéen jàng ngeen histoire boobu ay bomb lan lañ fa sànni ay bomb atomique tey ñooñu fàtte nañ loolu ba nekk ca kaw ci ñi raw ci àddina bi tey bu ñuy compter bu ñu nee benn ñaar ñett japonais yi ci la ñuy bomb te bomb atomique lañ fa sànni woon fàtte nañ ko ñëpp a liggéey tey julli ji rek ñoo des mel nii. jullit yi ak africain yi ñaari danger tey moo am ci kanamu jullit mooy nga nekk jullit danger la nga nekk africain danger la rawatina na nga bokk nekk jullit nekk africain yow moom ci ñaari danger nga nekk fun jëm bu nu takkul gëm sunu bopp liggéey ngir sunu bopp liggéey ngir sunu réew benn tubaab du jóge fa la ñëw duñ ko liggéeyal da ngay wax sax léegi ñu ne la ah, tubaab yi daal bi ñu fi nekkee moo gën kon ñun fun jëm tubaab ban façon nit la lan la ñu wuteeg moom lan la ñu ëpple lu dul jom la ñu ëpp ak fulla ak nangoo liggéey loolu laay wax bis bu nekk xale yi dama xëy tey am benn liggéeykat ñu liggéey ba ci ak mu ne damay dem ngénte man ne xoolal li moon tardel ngénte dem nekk fa ba midi mu ñëw ngénte koo wax damay dem dëj tey duma liggéey si boo demee fekk waa ji ñu ne dem na dëj non moom une semaine a ngi nii ñëwul ah parce que dafa fun jëm kuy ngénte doo liggéey kenn du liggéey bu ñuy ngénte yàq xoolal yàq bu ñuy takk yàq dégg naa benn ceet barki dem boo xam ne ndaw si dafa dem di yebbi di yebbi di yebbi di yebbi yebbil famille bi yëpp ba nit ñi jeex na mu ne jël leen saaku ngooñ bi ak saaku ràkkal bi ngeen jox xar yi xar yeeg xar yi sax danaa leen yebbil ay xar ngir di wane ne am naa foofu lan toll tey yal nañ yàlla won suñu bopp yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi allahumma ij'alna من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اجعلنا من اهل الاصلاح والنجاح والفلاح اللهم اجعلنا من اهل الصلاح والنجاح والفلاح ومن المؤيدين بنصرك وتعييدك ورداك اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله